beneen marché boo xam ne euh, joxe nga ko euh, et où joxe euh, boo xam ne la cour des comptes ne danga nga wul le principe d'économie et d'efficacité des marchés publics dans le marché relatif au coût de la refonte de six vedettes de surveillance de la DPSP pour un montant total de six milliards six cent huit mille euh, francs TTC. Mhm. Euh, alors loolu aussi parce que da nga ne début phrase bi laa bëgg. parce que moi la cour daga non cour sénégalais ñu ngi naan jombe man la cour ne me reproche pas d'avoir prié d'avoir machin. non non non non elle parle de liiral phrase bi euh, pour pour pour pour gën koo oyofal. da nga engagé da ngeen engagé un marché pour la refonte. mais nan la tàmbalee s'il te plaît. parce que yoruma non mu ne mu ne ministre mu ne le principe d'économie. et d'efficacité euh, pour la bi nga pour concernant la refonte mm. des six vedettes de surveillance de la DPSP ki s'élève à six milliards. léegi loolu moo koy résumé ñoom. ñoom lu ñu jàpp mooy euh, euh, les six vedettes de surveillance. Mm-hmm. de la DPS DPSP et l'aéronef ñu ngi ko jënd en 2006 à quatre milliards. nan nan lan nan nga mën a expliquer pour defaat refonte bi. nga war a fay plus euh, plus de deux milliards et quelque plus euh, que le prix d'achat nee nañ doom bu n'avez pas respecté le, le principe euh, d'efficacité euh, d'économie et d'efficacité bi nga xam ne moom lañ leen sant ci wàllu marché public yi déjà moi je salue le travail des techniciens qui font ça dans nos ministères parce que quand même la Cour et je l'ai vu dans un autre rapport c'est pas 2006 c'est 2002 mënoo jël les prix d'il y a ans sur des navettes en tant que telles ni mu meloon en vingt ans qui ne sont même plus en construction ki ne se plus ba ma ñëw y a six navettes ces navettes c'est quoi c'est des navettes militarisées ko ñuy jënd di ko mettre à la euh, kii la marine nationale pour ñu ñuy surveiller suñu géej la défense de ce ministère c'était la surveillance de no eaux moo waral ma réhabilité ITAFDEM c'est le seul bateau de recherche moo waraloon ma convaincre l'État pour ñu réhabiliter ces six navettes parce que bu ñu doon jënd peut-être benn lañ doon jënd wala ñaar mais réhabiliter ces navettes à neuf c'était refaire tout sa motorisation actuelle donc avec beaucoup plus de puissance euh, toute sa technologie qui n'existait pas il y a vingt ans et cetera pour la surveillance de de de, de jusqu'à son armement donc les gens ont prouvé par mille que si je devais acheter du neuf ce serait n fois ça. waaw mais la cour dafa ne avec ces Euh, benn wala matériel bu bees benn wala ñaar. Euh, la j'en fay six milliards. Euh, pour maa ngi fay six milliards pour am juróom benn ñu wax comme ni nga ko waxee wolof. bu ma jëloon six milliards yi xëy na benn laa wala ñaar pour même bii ma bëgg mais ci six milliards yi mën naa ci am juróom benn yow nga bëgg jël njëg bi nga xam ne deux deux mille vingt la woon maanaam ñaari fukki at ci ginnaaw nga xam ne technologie bi ci teg amuloon armement yi ñu ciy def amuloon et cetera. nga bëgg ko méngale pour ne ba léegi reproché wu ma ni fote naa de da ne respecté wu ma principe économie loolu lañ bind parce que li ñuy wax ci journaux yi nañu xolli li bi wax moo tax ma tàmbale ne bu leen wax loo cour bi lu mu waxul. mais mais mais xaaral ma yeggali xaaral ma yeggali moom dama lay kii euh, donc d' abord euh, loolu loolu la ñu wax ci pàcc boobu ensuite marché boobu man dama ko def de sorte que d' habitude nit ñi bu ñu yóbbee sa kii. d'abord dans le marché bi ñoo doon yóbbu vedette ba fi ñu koy defee seen chantier naval ca ca ca Europe bu ñu paree say technicien fii ñooy jóg dem vérifier ndax conforme na et cetera marché boobu clause bu metti laa ci def mooy que nii ñun duñ pour ñu fay leen il faut que navette bi ngeen pare ngeen indi ko fii Sénégal technicien bi ak marque national vérifier ko fii ci Sénégal ñu soog leen fa fay may mën a fay jógee lu dul je crois une avance bu li nit ñi joxoon pour justement ñu mën a commencer yóbbu navette fay ñu ko yoon benn donc xel mu ñaaw waru ce am donc loolu aussi je veux dire mën na à la rigueur sax <laughs> c'est c'est trop simple moo tax cour bi lan la ci laaj lan la ci conclure mais mais mais cour bi daf ci yokk ne euh, la société Martel bi nga ko jox te mu nekk en Île Maurice hmm. euh, dafa waroon réfectionner six finalement deux le livret non déggoo li ma wax de y un planning saa yu réflexion moom xam nga fay ñu ko moom saa yu réfectionné ba livré ko Sénégal ba service compétent yi réceptionné ko lañ koy soog a fay loolu man mi ma fay jógee fayaguñ leen benn parce que benn ñëwuloon kon bu nee ñaar la mais yeneen ñeent yaa ngi ci yoon bi sauf bu dee mag ci diggante bi dañuy rompre marché bi te dégguma ko loolu it <laughs> bind la mais gisuma quel est l'impact de ce de ça parce que bu ñu liiree marché bi xam nañ ni euh, loolu mooy condition de paiement yi maanaam le navire finit livré à Dakar de réceptionner j'ai exigé que la réception se fasse à Dakar pas que ay techniciens di dem fële di ko réceptionner mën nañ dem les visiter ça c'est c'est possible mais le navire livré réceptionné à Dakar moom la ñuy fay bu nee moom bi muy jaar waxtu bi muy jaar ñaar ñoo ñëwoon te xam donc il y a rien normal. mais ñoom dañoo jàpp ne. man mënoon naa comprendre ñu ne fay nañu ko. waaye livre yi. mais pour résumer. wax bi mais xëy na yow booy déggin booy lire loolu ngay jàpp pour résumer wax bi. da nga génne 6 milliards 608 mille génne wu ma ñaar dërëm. non non parce que da nga da nga da nga taxawal marché bu 6 milliards 608 millions. TTC pour euh, refonte euh, équipement yoo xam ne. juróom benn euh, juróom benn navette yoo xam ne état du Sénégal mu ngi ko acquérir woon en 2002. Ah. à 4 milliards. waaw ah. ah. ah. pour refonte bi nga fay 6 milliards cour bi mu ne loolu. warul ne prix refonte bi warul gën a warul mën a gën a cher hmm. euh, prix euh, d'achat bi en 2002 muy benn beneen bi mu ne euh, société Martel livré wul juróom-benni juróom-benni navire yëpp ñaar rek la livré et puis dafa promettre yeneen ñeent yi dina ko defar au Sénégal alors que c'est ah, pas ce n'est pas ce n'est pas le principe qui était retenu donc mu ne à la fin Euh, mënoon nga avec ces six milliards six cent huit millions euh, jënd des vedettes neuves au lieu de dépenser ce montant là pour pour pour faire une refonte des six navires mais euh, mais je viens de faire je vais reprendre la même explication. non ne reprends pas c'est-à-dire incohérence yooyu. moo moo moo incohérence amu fi wax naa la boo jëlee li ñu jël yaa ñaari fukki at ci gannaaw nga xam ne navette boobu yorul technologie bi yorul équipement yi tax ñuy wax et cetera. nga refondre ko pour def ci technologie bi tey équipement yi tey pour nga mën a gën a surveiller sa sa sa sa maire et euh, man j'aurais compris cours bi ne ma nawet bii kat bi ngay nar a jot nangam lay jàpp tey mais mënoo def comparaison boobu ba pare ne ma mënul nga ci jënd yu bees waaw mënul naa ci jënd yu bees ñaata ak ban façon. mais yow. muy benn ñaareel bi. bu dee euh, xaw ma société bi nee na xaw ma Dakar la fan la koy defaree Dakar fii amul chantier naval bu ñu moom ñoom fu ñu koy defaree loolu gëw ko xaw ma fu ñu déggee loolu ak fu ñu gëw ko parce que nekkul ci contrat mais yow bu fekkee am nga le souci d'acquérir des vedettes yoo xam ne dafay. Euh, de dernière génération de dernière génération. moom lañ may livré. Euh, non li ngay li ngay jëlee. vedettes yi nga xam ne dañ ko acquérir en 2002 di fay pour euh, installer ci des technologies de dernière génération mais tamit nga demoon jënd vedettes yu bees avec les nouvelles technologies avec les dispositions techniques et sécuritaires yi nga xam ne moom nga soxla est-ce que y a pas eu un est-ce que un mauvais choix n'a pas été fait mais je dis non et je défie quiconque et je défie toute organisation moi de me de me convoquer quelle soit la justice. man du ma je ne suis pas de l'économie maritime. man su ma naree jënd benn Ford Edge bu ko euh, moderniser euh, su ma naree jënd. ma jël range di nga ma naree jënd benn range. ah non di nga daan bëgg koo mu nekk range bu 2016 ma bëgg koo. Euh, non 2002 ngay wax non range bu laay wax ma bëgg cee ma bëgg a am range bu am équipement 2023 ah. Hmm. mais balaa balaa caag ma dem jënd range 2023. ma am tout tout tout tout toutes les dispositions technologiques foofu da nga nekk ci sa benn ak benn ci même njëg bi ci même njëg bi ak différence bi ñu wax man dama ci am juróom benn yi fi newoon mel na damaa jënd juróom benn yu bees en 2023 toute la différence elle est là au lieu nga dem jënd sa benn tey bu ñu la newoon technologie bi léegi ci njëg bii mën nañ fexe parce que yow xam nga ni oto mën nañ ko jël changer moteur bi machin et cetera carrosse jox la oto boo xam ne voilà euh, et puis may mun a d'abord man bu ma la wax nii avec certitude parce que moi mes techniciens m'ont convaincu waaye man du ma marin du ma kuy defar ay cahier de charge du ma et cetera mais mes techniciens m'ont convaincu cas voilà bëgguma wax extinction du soleil mais je vous trouverez quand même que c'est un peu limite nga jël des prix de deux ne mënoon naa ci amaat mbaa bu amoon ñu def ko mais quelle est la bu amoon ñu def ko mais ma je voulais mais six navettes parce que tey bu mu bu ma état jëndaloon man ba mu fa nekkee une vingtaine de navettes ma jël parce que c'est notre faiblesse la surveillance de nos eaux que ay nit mën a dugg suñu géej def lu ko neex mooy suñu faiblesse ci napp gi parce que justement amuñu les moyens mais navettes yooyu tey bu ñu leen livré mais et d'ailleurs c'est même pas nous qui les utilisons c'est la marine nationale c'est l'armée patrouille yi ngay gis nii dégg ñaari xaw ma ñetti mais ministère bee ko jënd mettre ko à la disposition de de la marine pas pas les derniers hein, de, guerre la yeneen yi laa lay wax donc loolu euh, franchement euh, moo tax ma ne quand la la cour je sais pas qu'est-ce qu'elle demande sur ça là elle a juste parlé de trucs d'économie j'ai pas respecté des principes d'économie mais muy yow muy keneen apparemment la presse mais lisez quand ce que la cour écrit mais ñu ñëw français